lii nga xam ne nag moo am d'abord damay njëkk rafetlu seen taxawaay yéen waa Bambey ndaxte bi mbir mi amee ñi ma ko yëgal yépp Bambey lañ dëkk te gis naa ne boobaak léegi noppaluwu leen yéen a ngi taxaw ci ginnaawam di dem tribunal wutal ko avocat taxaw ci wetam ànd ak moom ànd ak ay mbokkam ngeen taxaw Mamadou Ndiaye parce que xam ngeen ne leen koy teg jaaduwul Mamadou njaay jàngalekat la leen ko bëgg a takkal tubaab di ko tuddee ñaari chef d'accusation maanaam ñaari tuuma yuñ bëgg a teg ci kawam pour mën koo jàpp ku ne xam na ni réew mi ci tappale la nekk depuis ay at ngi nii ñu bëri bu leen fi jàppee li leen jàppee du lenn lu dul danoo wax rek lu yàqal nguur gi wala loo xam ne arrangé wul nguur gi moo tax ñu leen waaye defuñu dara lu ñuy tere Mamadou Ndiaye jàngalekat la nekk di jàngale mais képp kuy jàngale fii Sénégal wala ngay àtte wala ngay faj wala ngay def leneen am nga ab jumtuwaay boo xam ni ci réseau sociaux yi la nekk nga ci wax sa xalaat muy Facebook wala muy WhatsApp wala muy euh, YouTube muy lu mën a doon ku ci nekk am nga jumtuwaay boo xam ne da nga wax sa xalaat ci réew mi parce que état Sénégal état démocratie la fii du dictature maanaam ku am sa xalaat da ngay jël sa téléphone wax ko soo ko mën nga dem WhatsApp def sa ojo wala nga def sa message wala nga dem Facebook wala nga dem Instagram wala nga dem ci beneen. Euh, xeetu xarala yoo xam ne fa ngay jàllalee sa message bu dee nag loolu ku ko def ñu ni yow léegi journaliste nga te yow sa formation du ab formation journaliste ab jàngalekat lan la formé woon kon premier journaliste mooy président de la république parce que bés bu nekk mi ngi ci Facebook bi bés bu nekk Macky Sall président de la république bu Sénégal bés bu nekk mi ngi tweet bés bu nekk mi ngi yore Facebook am di communiqué ak ñi nga xam ne moo ñoom moom la àndal di politique kon nag keneen di ko def nga ne du ko fi defee parce que ko fi defee moom journaliste la kooku tooñ la bu dee ku am chaîne YouTube wala nga am page Facebook di ca wax sa xalaat ci réew mi dañ lay considéré comme journaliste kon man mii toog journaliste laa ndaxte dama am sama chaîne YouTube amul layam layami info boo xam ne chaque samedi ma toog fa def sama live wax sama xalaat ci réew mi kon nañ ma jël si ni journaliste laa léegi dootuma jàngalekat kon nag na arrêté journaux yeeg télévision yi ñi leen di représenté ci région yi man fu ne laay dem Sénégal en tant que syndicaliste journaux yi ak télévision yii ñoom ñëpp ñu ëpp ci seeni reporter ci région yi ay jàngalekat lañ li mooy dëgg man fu ne laay dem jàngalekat yi ci terrain bi ñoom ñoo nekk des reporters pour di représenter les chaînes de télévision et les journaux yi nekk ci région yi loolu mooy dëgg kenn du ko dindi li may wax ku ko weddi ma joxe ay tur à commencer par la RTS ñoom ñëpp ay jàngalekat lañ jël ci gox-goxaan yi ñu nekkal leen fa di leen relayer l'information te état bi xam na ko kon nag suñ taxawee naan yow boo taxawee wax ci chaîne YouTube wala nga taxaw wax ci sa page Facebook yaa ngay def beneen liggéey bu bokku la liggéeyu jàngalekat loolu tooñ la ak singli doomu jàmbur ju la deful dara kon nag président Macky Sall na siffler la fin de la récréation na bàyyi Mamadou Ndiaye mu ñibbisi ci njabootam. na bàyyi Mamadou Ndiaye mu delluwaat ci classe am jàngale parce que ñun ay jàngalekat lañ lii nga xam ne moom lañ ko bëgg a teg jaaduwul Mamadou Ndiaye deful lu ñuy tere parce que appel à l'insurrection bu fekkente ni moom li muy liggéey loolu lañ tuddee appel à l'insurrection mooy jox xalaatam ci réew mi ak jàllale loo xam ne sax du moom moo ko créé da koy gis ci benn euh, médium mu jàllale ko ci euh, euh, jumtuwaayam moom mais loolu ñun ñëpp moom la ñuy def ku ci nekk da ngay jot ay ay di ko partager mais amul dara lum créé lu xew ca mbaddaxun mu yëg ko daal di koy jël partagé ko ci page am ñëpp di ko partagé nga singali ko moom ni ko yow li ngay def waroo koo def parce que loolu appel à l'insurrection la te du moom moo ko wax kooku mënuñu ko appel à l'insurrection moom du njaay defu ko beneen bi mooy li ñuy wax ni day def beneen liggéey bu bokkul ak liggéeyu jàngalekat parce que am na page Facebook ak di wax ci YouTube loolu tamit tappale moo ko lal parce que Sénégal gépp a koy def ministre ngi koy def président la république ngi koy def ñun ñii ñoo ngi koy def man am naa sama page Facebook am naa sama tweet Euh, sama sama page Twitter am naa sama sama chaîne YouTube te bus bu nekk ñëpp nga may gis may jox sama xalaat ci réew mi lu tax woowuñu ma te jàngalekat laa lu tax woowuñu ma ne ma Dame Mbodj yow jàngalekat nga waroo am chaîne YouTube kon nañ bàyyi seen caaxaan yi. léegi nag li xew ci réew mi il faut ñu dénoncer ko actuellement ni ñuy jàppee jàngalekat yi dafay arrêté ci nii wala ci naa mënuñu dëkk boo dugg ñu jàpp fa lu ma ñetti jàngalekat ñeenti jàngalekat lu mat fanweeri jàngalekat a ci kaso yi ñoom ñu leen di jaay doole tout simplement parce que noo wax seen ci réew mi ñu ab ñu am benn Euh, benn benn euh, compte boo xam ni benn compte boo xam ne si mi ngi tudd Anita Diop di dénoncer ay sénégalais ñu leen di jàpp te ñëpp xam Anita Diop ni ci biir république bi lañ wax ne ñoom ñoo ko moom ab ministre de la république moo ko moom dem instrumentaliser benn benn benn benn benn compte boo xam si c'est un compte fictif parce que Anita Diop du nit ñoom ñoo ko tuddee ba noppi nag dafa jaare di dénoncer ay doomu sénégalais. ay ay ay ay force de défense et de sécurité di dem di jëli doomu sénégalais yi loolu kenn waru ko fee nangoo tey kenn waru ko fee nangoo ëllëg parce que loolu jaay doole la c'est de la dictature te dictature kenn waru ko fee nangoo fii Sénégal actuellement am na jàngalekat yoo xam ci biir groupe WhatsApp lañ jàppanteeg koo xam bokkuñu parti koo ko nekk ci parti au pouvoir mu dem dénoncer ko ñuy dem jàpp ko am na fii ci Diourbel fii ci Diourbel jàpp nañ fi jàngalekat boo xam ne ci biir pa ci biir groupe WhatsApp la wax loo xam ne mook benn waay bu nekk ci nguur gi ñoom ñaar ñu laale en tout cas militant wu koo xam ne la ci pouvoir bi lay jàppale ñoom ñaar ñu laale mu dem dénoncé ko ñu dem jàpp ko mais lii lii bu dul dictature lan mooy dictature kon nag lii mënta continuer li ñuy wax nag mooy ñun syndicat jàngalekat yi lay waxal parce que lii xew ci école bi suñu ko seetaanee bay boo ñu tas suñuy syndicat bu dee danoo war a jàpp jàngalekat yi ci ay tappale ci ay caaxaan jàngalekat di wax xalaatam jàngalekat di boroom xam-xam xalaatam ci réew mi lu may wax lan lay def ab jàngalekat di boroom xam-xam réew moo dem muy réewum démocratie mais borom xam-xam yi ñooy wax seen xalaat ci réew mi jàngalekat su waxul xalaatam ci réew mi lan lay wax kon jàngalekat taxaw di wax xalaatam ñun syndicat yi bu ñu seetaanee ñu jàpp ab jàngalekat parce que xalaatam la wax ci réew mi deful lu ñuy tere buñ ko seetaanee nañ tas suñuy syndicat parce que syndicat yi dafa war a nekk pour jariñ jàngalekat yi man Mamadou Ndiaye nekkul sama syndicat Mamadou Ndiaye maa ngi moom xamante mais man damaa jàpp ni en tant que secteur général damaa nekk kilifa jàngalekat yépp parce que man maa créé sama syndicat ku bokk ci man ak ku bokkul ci man sama njaboot la te ja te olof yi dañ ni maam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. Mamadou Ndiaye ci sunu sunu sunu sunu famille la bokk ñun en tant que jàngalekat kon li may lancé appel jàngalekat yi mooy ñun ñëpp nañ àndandoo a commencer par waa Bambey ñu taxaw nekk ci ginnaaw Mamadou Ndiaye ñu demander état Sénégal mu bàyyi doomu jàmbur mu ñibbi këram njabootam gii soxla nañ ko mbokkam yii ku leen gis xam ni. comme ni ko maire bi waxee sànq lekkatuñ naanatuñ dëpp ñu jàpp ko parce que seen xol jeex na parce que xam nañ ni seen doom nit ku baax la seen doom nit ku leen taxaw la seen doom mus sa def lu ñuy tere seen doom jooj ñu bëgg ko taxaw jaay doole loolu neexul ci ci ci ab xol loolu moo tax ñu ngi leen di defal mais di leen wax ni seen syndicat yi daañ taxaw jël seen responsabilité jàngalekat yi daañ taxaw jël seen responsabilité tappalekat yi naan ñen jàpp jàppuwuñu leen ci école bi caaxaankat lañ bu ñu amee sunu mbokkum jàngalekat ñu jàpp ko ci loo xam ne jaay doole la ñun ñoo war a taxaw ci ginnaawam taxaw ci wetam pour exiger ñu bàyyi ko loolu mooy yoon suñ ko deful dañuy manquer de solidarité te solidarité moo yore corps bi jàngalekat yépp dañoo mës a solidaire depuis indépendance ba suñ jon yàlla tey kon war ñu taxaw ñu jàpp ak jàngalekat ci jaay doole parce que ñaar yi koy jéem a tuumaal yépp ay tappale moo ko lal ba ñu toog di seetaan naan non leen ko jàppee du affaire fekk ñu ko école la muy jàngale kon nag loolu caaxaan la te ku yaakaar ne bokkoo ci sa tuur a ngi ñëw li ñuy def nii mooy danañ ñuy jàpp benn par benn su ñuy jàpp leen par benn ku ci nekk di reetaan ak tappale naan sa yoon nekku ci yow bu ñu yegsee ci yow fekk ña la waroon a jàppale ñu ngi ci kaso bi kon nag nañ solidaire ñun jàngalekat yi maa ngi koy lancer appel tous les syndicats d'enseignants muy syndicats yi nekk g ak syndicat yi xam si nekkuñu G7 képp kuy syndicat boo xam si da nga yore sa syndicat di doxal ci réew mi nga xam ne am na ay jàngalekat yu bokk ci yow lii nga xam ne moo xew ci réew mi da nga ci taxaw kon nag fii ci Bambey ñu ngi demander le G7 de Bambey le G7 de Diourbel ñu réunir dans les meilleurs délais ñu am taxawaay pour exiger la libération de Mamadou Ndiaye loolu lañ leen di demander loolu la ñuy demander au niveau national également le G7 au niveau national mu taxaw c ginnaaw jàngalekat yi pour exiger que ñu arrêté seen tappale yi ñu ñu libere jàngalekat yi ñu jàpp yépp notamment Mamadou Ndiaye mi nga xam si dañ ko cee boole jaay ko dool te deful dara demul marché demul sànni xeer tojul otob jàmbur sàccul alalu jàmbur deful lenn ñuy tere toog di liggéey liggéeyam toog di wax xalaatam ci réew mi ñu ñëw jàpp ko ba ko tëj ci kaso bi jaay ko doole ñun buñ ko seetaanee bu ëllëgee dinañ ci am yaraange te bu boobaa réccu dina wees kon instant bii la Mamadou Ndiaye soxla ko taxaw ci wetam ñu ngi demandé ñun ñëpp ñu taxaw ci wetam en tout cas man au nom du Cusems authentique dinañ ci taxaw li ñu mën pour exiger ñu bàyyi doomu jàmbur parce que fee ñu koy téye di gis-gisee taxawaayu waa Bambey taxawaayu waa Diourbel taxawaayu waa Mbacké taxawaayu waa Louga ak waa Podor ak fépp ku ci nekk nekk jàngalekat gis ni li ñuy teg Mamadou Ndiaye ak ñu mel ne moom jaaduwul bu ñu amee taxawaay bi ñu war a am léegi ñu bàyyi ko kenn du ko téye parce que li leen koy jiñ appel à l'insurrection ak Euh, li nga xam ne moom la ñuy wax ne dafa def usurpation de fonction li ñu ciy jublu mooy yóbbu ko instruction bu ñu ko yóbboo instruction duñ ko yóbbu flagrant délit parce que suñ ko yóbboo flagrant délit xam nañ dañ koy bàyyi ndax deful dara léegi nag ñu viser ay chef d'inculpation yoo xam ni laalewul dara ak li nga xam si moom lay dund moom bu ko defee nag lañ ca jublu mooy mën koo téye ci kaso bi lu mu gàtt gàtt juróomi weer juróom benn weer loolu la état Sénégal nekk actuellement ku mu jàpp te defoo dara comme xamul lu mu lay taqal amu ko. dalay yóbbu ci euh, day viser ay tuuma yoo xam ne tuuma yooyu juge d'instruction bi du la mën a bàyyi dalay téye ci kaso bi dem yóbbu la placé la mandat de dépôt bu ko defee ñu bàyyi la fa bu ñu demee ba nga am ñeenti weer wala juróomi weer ñu ne avocat bi déposé euh, demande de liberté provisoire ginnaaw bi ko dégloo ñu doog lay bàyyi nga ñibbi fekk nañ la lu mat ñeenti weer wala juróomi weer loolu nag kenn du ko fi nangoo nañ bàyyi doomu jàmbur ñibbisi parce que def la tax ñu bàyyi ko ci kaso bi lii daal mooy suñu taxawaay